pour le PUDC alors Souleymane l'appel au dialogue euh, Sonko son camp dafa guñu communiqué bu leer y a un communiqué fake bu génn vite démenti mm. par le chargé de la communication euh, du côté de, de Sonko Alioune Tine dit qu'il se félicite que Macky Sall accepte de parler à Ousmane Sonko ça est-ce que mun nañ ci comprendre ne dialogue am na Ousmane Sonko dina dem ci dialogue bi d'ailleurs ci dialogue boobu moo war a meññ une loi d'amnistie mu nar a nekk suñu quatrième loi d'amnistie euh, boo xam ne dinañu euh, teggil coonoy prison euh, nit yu bari yu nekk dans les geôles ak sax élargir ko ba ci xalifa Sall ak Karim ak ñeneen ak ñeneen. waaw man man de masuma wax ak Ousmane Sonko. benn yoon laa mës a dajeek moom ci avion te dafa xam naa teyu ko waaye dalaa dalaa fël <laughs> moo ko tey ku la gisee du la xàmme dalaa jéppi euh, xam nga booy dugg booy dugg avion ginnaaw ngay duggee defe naa teyu ko moo ko tey dalaa jéppi euh, mosuma ko vous êtes reconnaissable sur un million à boobu ah. mosuma koo gis euh, yéenewu ko woon kaso te yéene woon naa ko te wax naa ko sama waa parti mere sama waa euh, coalition coalition mere ma bi ma waxee ne man euh, Pastef dama ci amoon yaakaar parce que masumaa gis lu mel ni depuis jamono yi AJ/PADS aj nga gis ay jeunes cadres brillants brillants mais vraiment il faut le reconnaître ñu dajaloo ne dañuy créer parti xale yoo xam ni euh, j'ai de l'admiration pour certains d'entre eux beaucoup d'entre eux d'ailleurs mësuma euh, ak méthode yi Ousmane Sonko mais président de la République Macky maste masta écarté possibilité Sonko bokk élection ah bon may mun a gis nga Ousmane dama mas a woo sëriñam ma ne ko neel Ousmane lu ñuy bañ mu génn ñu ne dañu barricade bañ mu génn kaaraangeem la mag dañ ko bëgg a protéger ma ni ko wax ko ne ko itinéraire yu ñu koy bugg a jaarloo muy bañ itinéraire yooyu yooyu la ñu sécuriser parce que dañuy dégg ay nouvelles bu bëggee jaar université yaa a vingt dix mille amis euh, euh, étudiants bu jàmbur jógee fële laal ko dañ naan Macky Sall la nguuri Macky Sall Macky Sall a protégé la vie de de Ousmane Sonko ba ci prison bi buñ ko jëlee hôpital yóbbu ko prison parce que am na renseignement yu ñu ko gis nga bi mu duggee kaso bi mu demee ba ci biir dafa am ñu dem seeti Macky Sall ne ko wéy dañ bugg mu génn su génnee ñu yóbbu ko Maroc faji ko ñu wax ne day faju ci mu exilé wu Macky il faut l'aider à tenir un discours républicain mu bàyyi yi muy def mais man bëgguma mu génn réew mi dafa am place ci dëkkam